asalaamaaleykum ñu ngi nuyoo ñi ñuy seetaan ñëpp di doore suñu wax fi ñëpp doore rek mooy bés bi bésu tiis la ci senegal mooy euh, ñaar fukki at ci gannaaw lu mat euh, ñetti téeméer ci ay bakkan rot na ci loo xam ne ci suñu cosaan ak suñu aada dañuy faral di wax ni ndogalu yàlla la waaye ñëpp xam ni càgganteeg nit moo gën a sabab loolu at bu ne nag mu am ñu ko taxawee nen mu mel ni at wu ne nag day gën a wàññeeku te loolu mooy andi fàtte mooy andi ñu dem ba fàtte loo xam ne lu ëpp fàtte la waaye célébration yi baax na commémoration baax na waaye am na lu ko gën mooy ñu fexe ba xam ku def ak li tax mu def ku ci def naka sudul noonu war mën a uyu ci kanamu yoon ndax fi léegi loolu amuñu culture boobu ci suñu réew lu nu mel du fi jóge bis mu ne nga dégg ab gaal gu suux amoon na daawaati jéeg fële ci Toubacouta bitinti ay bakkan yu bari rot ci bis bu nga dégg nga dégg accident circulation boo xam ne lu bëri ci bakkan dina ci ron te boo demee ba ci biir négligence humaine rek moo ko waral depuis ki bàyyi oto bu daw te warul daw ndax warul mën a am visite technique ba ki ko arrêté ci yoon bi gis ni ay papier matul mu bàyyi ko mu dem ba ci chauffeur bu ko dawal ba keneen ak keneen tant que amuñu culture boobu ne dañuy xool responsabilité yi li may wax nag du rek ci mbirum lu jëm ci transport waaye dafa jëm ci bépp fànn mooy ñun sénégalais war nañoo xoolaat suñu bopp ci ni ñuy doxale parce que bëri na lu ñuy dal ci ay immeuble yu daanu ay bakkan yu bari rot ci te ñëpp gisoon nañ ni immeuble bi ci fële foofu la jëm ñu bàyyee ko noonu moo tax commémoration bi nu mu baax baax baax am na lu ko gën mooy nañu fexe ba xam ku def chaine bi yëpp nag daa di leen jaarale fi ñu leen war a jaarale kon ñi ci seen bakkan rot te dee nañu ci àdduna Cheikh Tidiane ñu fàttali na ko musul am accident bu toll noonu ci dégâts humains yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen yal na yàlla xare leen àjjana donte sax jàpp nañ ni li ñu jàng ci diine mooy yenn xeetu faatu yi ku ko ku ko faatu dañoo jàpp ni shahid nga mooy martir nga cër bi islam jox martyr mooy mën nañ laa suul te duñ la sàng sax cër boobu nga am waaye nag lu métti la ci famille la ñu war a waxtaanee nag ci ay poñ dinaa ko doore ci assemblée nationale defe naa ñi ci war a waxoon nañ ci yenn ci li am biir assemblée nationale waaye man li ma bëgg a wax rek ci tuuru conférence de leaders yépp mooy ndaw yi ñu teewal ñun yeewi askanu ci assemblée nationale lañu fa def lépp ànd nañ ceeg ñoom à 300 pour cent ma baamuwaat ko parce que dañoo ne ci réew mu xaw a doy waar donneur de leçon yu bari lool critique bi yomb nag dem nañ sax ba naan lii de xam nañ ni leaders yi sant ñu leen ko ma wax ko fii nag ñun leaders yi ñoo leen sant taxawaay boobu bés ba jokkoo nañu ak ñun suivre nañu li xew ci suba ba guddi te ànd nañ ci mu leer nañ te saa su demaatee noonu lañ leen sant moom mooy nañu amaat taxawaay boobu bu yóbboo nag Macky Sall créer caserne de gendarmerie ci biir hémicycle bi lan moo waral loolu nag mooy mandat bi leen sénégalais yi jox mooy na assemblée soppiku mooy ne assemblée bi nga xam ne mooy voté loi na doon moom ki njëkk di appliquer loi assemblée bi nga xam ne mooy voté loi moom na jiitu ci appliquer loi assemblée ñaar ñoo ko sëkk constitution ak réglement intérieur de l'assemblée constitution dafa wax ni lii mooy cëru assemblée nationale lii mooy cëru député bi nii lañu war a doxalee biir assemblée nationale règlement intérieur assemblée nationale ñëw mottali ko ne assemblée nationale lenn lu ñu ci war a doxal ñii la war a doxe ñoom nag bi ñu nekkee fii ba léegi yàlla dafa natt woon ñuy am majorité écrasante ba nga xam ne dañuy ñëw teg seen oom ci réglement intérieur bi di appliquer lu leen neex ku wax ñu ne la minorité ngeen noppi leen loolu moo fi musa am ñun ñii xeex nañu assemblée nationale te dañ koy assumer parce que gis nga Sénégal nañu bàyyi yenn wax yi xeex ci boppam du mooy problème bi lan moo indi xeex bi ak lan moo tax nit di xeex yonent yàllaa ko yónni te kenn gënu koo bëgg jàmm waaye bu demee ba génne jaasi xeex am na lu tax ñuy toog fii naan kenn warul xeex jàmm jàmm jàmm ñoom ñoo gën yonent dañoo gën yonent mi nga xam ne xeex na te su xeexuloon tey islam du egg si fii kon nañu bàyyi yenn wax yi ay xale bu ñu tongowee da ngay jàpp seet ku tooñ nga téelu xam ne ko yaa tooñ boo ko mënul da noppi ci wax ji waaye non déception ñun di taxuloon yóbbu leen assemblée bu dee ñoom dañoo ñëw assemblée nationale bëgg imposé imposer lu dul yoon lan la député euh, opposition war a def sol seen costume cravate croiser les bras suñu yoon new si ëllëg bu ñu ñëwee bëgg a wote benn loi pour ci góor jigéen wala dañuy wala dañuy wote loi pour yokk euh, njëgu ceeb wala njëgu diwlin wala leen ak leen opposition bi neen nii la war a demee ñoom ñu ne dañuy teggi loi daal koy def par force lan la opposition bi war li ñu def barki démb lañu ñu war a defaat moo tax ma ne leen ngàcce gaalaama siggil ngeen ñu parce que man nekk na assemblée cinq ans minorité lañ fa woon di cee xam ne li may wax bis bu ne ñu jalgati yoon te mënoo ci dara loolu nag moo jeex tàkk nag ndax nag ñoo leen ëpp doole assemblée de majorité sax amatuñu ko ndax 83e bi nee na léegi non inscrit la ëpp ñu ñu lim. gënuñ ñoo nekk ndaw ëpp ñu kàttan du ñu ñàkk fulla nag ba ñu jaay ñu lenn li ci biir assemblée loolu jeex na assemblée li tax nag li ñu def am solo lan moo ci tegu la ca la tepp ci ñaari fan yooyu yëpp dañoo dellu si négocier lépp dañ koo waxtaane lépp dañ koo waxtaane waxtaane nañu commission yi nañ ko war a tëralee kan mooy jël ban nanga bi ñu ñëwee lan la ñu waxoon ci commission yi ñoom ñooy tànn lu leen neex opposition doog a tànn gars yi neen du fi amee du fi amee dañ koy waxtaan ba déggoo assemblée boo xam ne ëppoo fa doole gestion paritaire la war a doon opposition li mu wax rek mooy nañu toog waxtaane mbir yi fii kenn bëggu fi lu yàqal Sénégal kenn du fi def loo xam ne da koy bloquer pour bloquer rek pour le plaisir déedéet lu ñu indi lu baax ñu wote ko lu ñu indi lu baaxul ñu ne leen du fi amee loolu mooy assemblée nationale loolu la sénégal yi bëggoon ci ñun moo tax ñu jox ñu quatre-vingts députés de l'opposition deux non trois non inscrits muy quatre-vingt-trois ñoom ñoom quatre-vingt-deux kon est-ce que yoon la ñu toog yoon ne suñuy voté ay ay enveloppe la war a doon yu yu am ay couleur pour candidat bu nekk ñoom ñu ne loolu du fa amee ñoom ñoo violé règlement intérieur ngeen bëgg suñuy député lem seen loxo seetaan leen ñu def leen neex géwélu Macky Sall ne foofu mel ni moom moom Sénégal bis bu amatee ñu jaarat noonu foofu ma wax ko léegi mu leer bu yóbboo nag na préparer andi caserne gendarmerie biir assemblée nationale may dànkaafu Macky Sall nag parce que man su may wax ak Macky Sall damay wax Macky Sall góor noonu lay def du ma gaar waale de moom day et ay nitam ne leen dem leen saaga bu paree taxaw nele mag ñi naan moom kay dafa yaru man su may wax ak Macky damay wax Macky Sall li muy ruuma daat bi mu njëkkee génn Sénégal yëpp di ko xaar foog ni Macky Sall lu am solo lay wax mu ñëw di wax wax yoo xam ne waxu daanu saret la lim ci jublu woon yëpp mooy gëbal su bi mu am Ismaïla Madior Fall commencé ko toggal naan ko da ngay suspendre assemblée nationale article 52 de la constitution loolu lay rumba naat fi mu toll nii waxaat na ko benn télévision tugal président Tunisie bi foofu télévision boobu la ko demoon waxi dellu si daal di suspendre toutes les institutions à Tunisie Macky Sall barki dem bi mu demee Nations Unies télé boobu la dem waxaat ko dina xam ni Sénégal du Tunisie Sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée nationale wuyoo assemblée nationale moo tax ñu ne dañuy dooleel opposition moom nee na ses pouvoirs ne dépendent pas de l'assemblée les pouvoirs de l'assemblée ne dépendent pas de lui loolu mooy yoon. suñu nee séparation et équilibre des pouvoirs mooy moom ci boppam ay pouvoir assemblée dépendrul ci moom moom waroon na am kersa di wax ci assemblée parce que mi ngi viole séparation des pouvoirs mais comme c'est un homme volontairement violent dans tout ce qu'il fait moom jàpp na ni Sénégal da koo donn ci ay waajuram xam na ñun ñii ñëpp ay ay ay assujettis lañ moo tax mu jàpp ni moom mën na suspendre assemblée nationale bi daa di am tous les pouvoirs di gouverner par ordonnance loolu la gëm Macky Sall Ismaïla Madior Fall mais mu teg fee nga xam ne musiba bu mu dugg nag moo ko fay dugal loolu la ko gëmloo fi mu toll nii waaye ba ñu yegg ca waaye teel naa teel nañ ko dànqaafu te wax nañoo ak sénégalais yi moom mënul fecc li sénégalais yi fas sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée mel nii ñoo bëggoon opposition bi am fa doole ba lu fay ñëw dinañ ko mën a càmbar te noonu lañ koy càmbaree nag. te fan yi di ñëw assemblée nationale dina neex de li muy tiit li ko tiital ba muy bax baxi loolu dina am assemblée nationale dina doon un lieu de débat boo xam ne mbiri dootul ñëw rek député nelaw ba ñu ba ñu ne heure wat mu jóg ne wote la déedéet lu ñu andi nañ ko càmbar parce que loolu la askan wi namm ci ñun waaye duñu yem ci loolu ñun dañuy yóbbu dinañu proposer ay loi teg ko sur la table loi yu dëgër nag loi yu leer nañ yoo xam ne Sénégal da koo soxla dinañu déposer pour ñu taxawal ay commission d'enquête parlementaire ci luubal gi ne ci réew mi loolu moo ko tiital waa ji nelawatul lekkatul boo xoolee kanam gi sax da nga ko yërëm dinañu càmbar bi budget yi nga xam ne moom la war a teg ci table assemblée nationale ba mu leen li lii mooy intéret Sénégal lu ko may ñu delloo ko ko en seconde lecture loolu tax muy annoncer la couleur naan si on bloque moi je prendrai mes dispositions yooyu ay waxu daanu saret la kon ñu ngi rafetlu suñu taxawaayu député bu ñu déglu kenn ci ay donneurs de leçons assemblée nationale règlement intérieur la kan moo mun a ne Benno Bokk Yaakaar violewul règlement intérieur ni mu falee président amul ku ko ñemee wax ci Sénégal ba pare ñu bëgg ne gars yi nañu toog jàpp seen njàmbur croiser les bras loolu jeex na ci senegal wax nañu gouvernement bu bees 2019 dama taxaw ci assemblée national vidéo yaa ngi fii xale yaa ngi koy génnewaat ba léegi ma ne sénégalais yi njumte am na de ndax jox Macky Sall deuxième mandat musiba la ci senegal ma ne woon yi nag juróom at yi di ñëw di ngeen souffrir. du yéene de yàlla xam na ni yéenewu loolu lool Sénégal yërmande rek la ñu fasal Sénégal ci suñu xol gi mais xam réalité bi moo taxal ma ne Sénégalais di ngeen souffrir waaw moom def na ñeenti at ak lu ko tegu Séné est-ce que am na Sénégalais bu mun a weddi ni Sénégalais yaa ngi souffrir fi mu toll nii ana mbënd bi ana njëgu dund gi ana njëgu loyer bi ana liggéeyu ndaw ñi ana paj mi. ana njàng mi lan moo dox ci Sénégal nañ moo wax benn secteur boo xam ne mi ngi dox Sénégal kan moo ma ko mën a génneel amut dara doxul kon su ma taxawaatee fii ñu ne waa ji at ak genn wàll ko dese may leen at ak genn wàll googu Sénégal dinañu souffrir encore ngeen war ma gëm parce que dama ko teg fu leer nee na gouvernement la teg gouvernement de combat moom dafa yéex a yeewu combat bi commencé na bu yàgg moom daan nañ ko ba sëlëm ko muy doog a yeewu naan gouvernement de combat combat bi doorul tey combat bi dafa door bi mu commencé ay tappale mois de mars ñu duma ko sur le terrain mu ñëwaat élection locale li génn ci urne yi ñu duma ko luy ville bu mag mu ñàkk ko ñëw élection législative ñu duma ko bu gën a méttiiti te bu ñu demee 2024 ñu faxas ko mu dem muy doog a yeewu naan gouvernement de combat moom kay mooy yey tuddee boppam le lion ki dort et qui jamais waaye gouvernement de combat par rapport à quoi et par rapport à qui est-ce que combat bi pour régler problème sénégalais yi la déedéet dama ne xool leen gouvernement bi kan moo ko jiite Amadou Ba Amadou Ba yor na ministère de l'économie et des finance pendant sept ans tey économie Sénégal xalangu na ba ci suuf ana entreprise bu dox ana secteur économique bu dox exonération fiscale yi ñu jox entreprise étrangère yi te du yoon wax naa ko assemblée nationale xaalis réew mi ñu sàcc suuf si ñuy dagg aéroport ak feneen ak feneen lépp sous le magistère de Amadou bala la ku télé pendant sept ans mënoo taxawal économie ñu ne la un an et demi jox nañu la premier ministre tey problème Sénégal jeex Sénégal nag boo fi amee say milliards yaa xam foo ko jëlee ndax man de inspecteur des impôts la aw may million waaye boo fi amee say milliards 2014 déjà neewoon nañu cent millions la def ci image am budget image léegi nag xam naa ay milliards lay doon boo fi amee say milliards loolu ñu bindal la ko l'homme de la situation nangam nangam mu mel ni waa ji barki démb rek nekkul woon ministère <laughs> ministre de l'économie de finance te dara doxul ci réew mi moo wax ko sénégalais yi man yéen laay waxal sénégalais yi lu toll ni tarfata ay du changé waaye day gën a garaaw xam ngeen ndax lan Macky Sall dafa lajj depuis le début xam nga fu mu juume mosul xam lan mooy priorité Sénégal lu neex tubaab yi la doon xool moo tax tubaab yi ne ko defal ay infrastructure parce que suñuy entreprise soo defee infrastructure ci la ñuy mën a am marché sa dëkk tabaxal ay stat tabaxal ay arène tabaxal ay autoroute loolu lépp baax na de waaye lan mooy priorité Sénégal ak lan lañu ci def ana mbayu Sénégal mbay dañu ne woon 2017 la ñuy am autosuffisance en riz tey la ñu doon importer si ceeb lu ko raw la ñuy importer ana mbayu Sénégal mbay réew mu mënul téye mbayam réew moom munul fexe ba defoon waaye bu àdduna bi tisoolee yow nga soj parce que tey suy dem ba Ukraine di yelwaan ay blé fa suñu suuf sii nga xam ne yàlla jox nañu ko kenn xamul nu mu toll lan lañ ci def ba tey suñu mbay mënul dundal Sénégal ana industrie Sénégal zéro tissu industriel réew mu amul industrie pour transformer li ngay bay munoo développer munoo créer emploi munoo am résilience mooy su amee problème ci àdduna bi nga mun koo dëkku ana loolu yooyu mooy priorité Sénégal ana napp gi jaay na géej gi yëpp ana càmm gi zéro nga foo ne di nga développer réew ci anam googu ñu naan change andi nañu premier ministre dàq nañ premier ministre sénégalais ku gëm ni loolu mooy soppi mooy tax ndaw ñi am liggéey moo tax paj mi baax moo tax euh, euh, euh, économie bi développé nax nga sa bopp dara du dox ñeneen ñi ci nekk ministre yëpp nekkuñu fa woon ministre suñu scandale pétrole ci ministre yooyu la jaar suñu scandale Prodac ci ministre la jaar suñu scandale bi ñuy bëgg a jaay suufu suufu Batrin beek ñoom seen ci ministre yooyu la jaar suñ ci taxawul woon tapé sur la table tey jaay nañ ko ñu am seetlu yëpp jàpp jàpp gis nañ ni dénominateur commun bi ñu am mooy kan moo dàq saaga Ousmane Sonko ci ñoom léegi ku bëgg a doon ministre wala nga am ay milliards saagal Ousmane Sonko Macky Sall fi mu fi mu fi mu yóbbu senegal fi mu wàcce Sénégal dafa sax indécent ci Macky Sall rek la Sénégal eggee fii waxu waaso waxu xeet waxu région saaga suba ak ngoon suñu waxee ñu ne xale yi saaga ci ci Facebook bi déedéet. xale yi dañuy développé ay anticorps par rapport ak ay mag yu leen saaga tous les jours man de kenn musuma dégg ma saaga kenn gisuma gis gi ma ànd ak saagakat Macky Sall ngay gis ku saaga su ba ngoon jot moo ko pale jox ko xaalis photo ak moom jabaram toog ñu photo foog nga ni sengoor dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdou Diouf dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdoulaye dina doon wàcce république à ce niveau tey saagakat yi ñooy ñooy doxantu biir pale nit ñi suñu bëggee wax nañu wax loolu moo gën waaye suñu jógee waaw goney Pastef yi nangam nangam goney Pastef yi anticorps la mooy ku yaram bu ko feebar duggee dafa am loo xam da koy développé ci ci biiram pour mën a xeex feebar boobu waaye guney Pastef fi jóguñu saaga kenn guney opposition jóguñu saaga kenn dañuy tontu ñi nga xam ne ci loolu la ñu dëkk suba ngoon moo tax bu dee politique tam waaye ñoom addition de zéro la ñuy jël ñëpp ne dañ leen def ministre c'est pas eux qui vont faire des kan moo ci gañee fi mu dëkk ci ñaari élection yu passé ñoom ñëpp dañ leen duma ay liste remplaçant ñoo leen di duma ban poids politique la ñu nañ ma wax jël leen kenn kenn ministre yeeg premier ministre yëpp dóor nañ leen élection locale duma leen élection législative kon du ci administrativement du ci politiquement du fenn foo mën a nattee du ci prise en charge des préoccupations des sénégal du fenn foo mën a nattee ne ñi gouvernement de combat la mu des nag kon ban combat combat ak opposition c'est pas un un escadron de bras cassés et de canards boiteux qui va combattre l'opposition kenn ci ñoom gañewu ci bureau de vote du ñu ñoo ñuy moo wax leen nag vrai gouvernement de combat Macky xam ngeen lan la général Moussa Fall la commissaire yàgg la une partie de la justice la une partie de la presse la lii mooy gouvernement de combat Macky Sall la ah. du lële général Moussa Fall ak yàgg gëmloo ko ni jënd na lu doy ci ngànnaay ci grenade lacrymogène ak leneen ak leneen ba ku yëngatuñu duma la moo tax lu xew ci réew mi ñu génne char de combat fu ne pour dox ci ci ci ci xelu seen xale yi ba dootuñu ñeme. mais dañoo xamul lu xew laajal Ben Ali laajal Moubarak laajal président Soudan gis nga un peuple qui dit non gisuma gendarmerie wala police bu koy téye yooyu ay waxu la ñaareel bi mooy une partie de la justice sénégalaise est-ce que tey xoolal classe politique bi su ñu lay dem élection 2024 nee nañu Khalifa Sall du doon candidat nee nañ Karim Wade doon candidat léegi ñu ngi ruma daat mi Barthélémy Dias doon candidat Déthié mi am na benn source man moom ma teel ko wax gannaaw yàlla amul luy dund lu ma mën a tere ne candidat loolu moom du lu ñuy wax waaye lépp fan la jaar mu ngi jaar ci justice ci ay tappale yu kenn xamul soo joxee ñoo magistrat jóg mbel mbel mbel mbel mbel nun kenn mënuñoo xoqatal kenn mënuñoo intime gis nga réew mi lu fi jara wax yëpp dinañ ko wax parce que dans une démocratie tout se discute amul sens interdit bu justice defee lu dul yoon ñu wax ko tey la la justice et le premier bras de Macky moom mooy instrument pour la liquidation politique des adversaires de Macky Sall justice waaye nag lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru de nañu tey parce que ñun ñëpp sénégalais lañu te kenn ëppalewul kenn ci dëkk bi la presse maa ngi félicité Barthélémy Dias li mu wax keroog dëgg la une bonne partie de la presse bokk problème la ci Sénégal barki yàlla booy xool pressu Sénégal nga xool presse Mali wala presse su Burkina da ngay rus c'est devenu un problème la ko andi nag yéen journalistes yi taxul yéen ñu wax de yéen moom ñoo bokk coono ñooy naanandoo suñu lacrymogène bu ñuy tourné ñooy fanaanandoo ci àll bi seen patron yi dem mbëkk fële ñu jox leen ay milliards te duñ leen ci jox ñoom la ñuy waxal ay dóorkat ay mbëkkkat nguur gu ñëw ñu naxanteeg moom laxas si moom ñooñu ñoo tax ñuy wax dafa am jamono nit ñi dañoo gëmoon ni le la la quatrième le quatrième pouvoir c'est la presse da ngeen ko daan dégg même dans les livres de livre de droit constitutionnel dañ ko doon wax moo tax ñëpp dawoon dem uti organe de presse ne su ma ko amee am naa moins de presse de pression am na wéykat bu ne woon euh, nu mu ko tuddee ouragan ëppal asamaan euh, jant leer ma jànnoog satellite satellite woon ma feneen feneen dinaa liggéey ba am lu ma jëndee satellite nangam nangam boobu gént bu yàgg la woon su ma juumul kàddu yi noonu la ñu jàpp ni ku am sa groupe de presse soxloo parti politique te yaay ëpp doole parti politique bi soxloo nekk président la république te yaay ëpp doole président la république bu ko defee mu doon moins de pression et de chantage sur les gens et ça marche avec les petits président yu amul benn personnalité xaalis bu ne nga joxe ko naan na ñu bind lu baax ci man ak bu ñu nañu bind lu bon ci ñële mais loolu dafa jeex takk la jeex dañoo nekk jamono joo xam ni presse sax léegi mu dépassé parce que yéen ñi ñëpp journalistes yi wóor na ma ku nekk am nga sa benn blog sa benn page Facebook booy def sa benn site internet ku yaakaar ni yor nga groupe de presse loo neex nga wax ci nit ñi te li gën a garaaw mooy kenn du la tudd yow mun nga taxaw wax loo neex ci nit ñi ku la tudd nga mel ni mbott bu wadd bu wann caméra loolu au nom de quoi au nom de quoi invité nit ci plateau mel ni ku lu ne nga yàq ko ko mu dóor la benn nga ngay bëgg a xetraay Au nom de quoi Cette dictature ne marchera pas. En tout cas, moi, ça ne marchera pas avec moi. Je respecte chacun et j'exige le même respect de chacun. lan la ñu fi bindalul ci ay ngeen wax ngeen baal ma ci wax ji may ay fenu neen l'observateur en pleine campagne Sonko a reçu 195 millions de touloy oil est-ce que am na lu gën a garaw loolu kan moo ci wax ngeen foog ne loolu dina continuer noonu dans ce pays parce que yor naa sama organe de presse rek lu ma neex ma bind ci nit doo xool ni père de famille la doo xool ni dafa am njaboot ci politique ay milliers de personnes topp ko bañuñu ku def nga am preuve ni def na nga wax mais sos suba ngoon guddeeg bëccëg sénégalais dañuy toog di seetaan seen télé nit di wax ñu naan kii moo mën a wax lu dul noonu parce que nit ñi léegi dañoo yeewu moo tax li Barthélemy def ànd naa ci man réew mi il va falloir crever te am na loo xam ne dootuñu ko nangu lii nag mooy gouvernement de combat Macky Sall gouvernement combat Macky Sall c'est pas ces canards boiteux là de ñii politiquement ku ci dem terrain bi ne damay quartier laa bëgg soo demee ñu duma la kan moo ci gagné wax leen ma am na ñu demoon élection locale fii Dakar defe naa est-ce que am nañu sax 5000 voix am na ñu demoon yeneen dëkk yi fu nekk fan lañu ñu bañ naan ñii. mën nañu def un gouvernement de combat contre qui donc ñu feddali ni lii lépp ànd nañ ci la ca des nag wax na kaaw Barthélemy Diaz man askan wi laay waxal askan wi moo war a protéger les mandats qu'il donne puisque institution yi mënatuñ koo def assemblée nationale li mu fi nekkee depuis des années gis nañ ko man bi ñuy lewee sama immunité parlementaire ñëpp xam nañ ni jaarul yoon ñëpp xam nañ ko un député qui est en cours en session loi li mu wax dafa leer suñ ko poursuivre lu dul assemblée nationale levé na immunité li xew nii acte de poursuite la parce que poursuite yi mi ngi commencé avec réquisitoire procureur mi ngi jeex quand le jugement sera définitif loolu mooy poursuite donc en appel acte de poursuite la preuve le le procureur est venu defaat réquisition am daal di demander cinq ans loolu du acte de poursuite kon lan moo tax assemblée nationale ne ci cell moom di seetaan pour que un député en cours de session ñu mun ko euh, condamner sans pour autant que l'assemblée nationale n'ait levé son son immunité moo tax ma ne affaire bi dootul affaire u assemblée nationale donte suñuy député dinañu déposer li ñu war a semaine bi avocat yi dinañ def euh, pourvoi en cassation mais dootul affaire assemblée nationale la ma waxoon ba ma ca tollee man mois de février daaw dama leen ne lii du mbirum justice mbirum jaay doole la ak mbirum politique donc politiquement lañ koy répondre askan bi moo war a protéger ses mandats parce que dañoo jël Barthélemy ne kii ab criminel la askan wi leen d'accord criminel boobu moo ñu doy pour jiite la capitale du Sénégal ñu jox ko mandat askan wi dellu siwaat criminel boobu moo ñu doy pour ñu jox ko mandat mu dem assemblée nationale kon askan wi weddi na loolu loolu doy na ci weddi moo tax askan wi moo war a protéger ses mandats parce que fu ñu bëgg a jëm mooy foqati son mandat de député ak ak xool ndax mën nañu foqati soo mandat de de ville de Dakar loolu duñ ko nangu la may daanelee daal pour bañ a guddal yow askan wi laay waxal rawatina yéen ndaw ñi rawatina yéen ndaw ñi bu leen kenn ëlëmal ak wax yu amul solo ay def na gouvernement andi na premier ministre dàq na premier ministre dugg na fii génn na fii gouvernement bi dama cee cof rek dinañ ci wax bu jotee parce que xam nañ leen de dañ ci wax bu jotee te nag combat bi mu bëgg dina am ma nga commencé assemblée nationale li mu ragal dina am ministre yëpp ñoo ngi leen di xaar assemblée nationale benn benn xam nga ñun ay benn benn lañ fa newoon Déthié Sonko Aïda Mbodj te daan daan nañ leen duma duma yu métti bii paa nag dina saf-saf assemblée nationale projet de loi bu ñëw loi de finance bi yéen ñëpp di ngeen gis ren plénière yi nu muy demee dina neex de loolu nag moo tere nelaw Macky Sall waaye li may wax ndawu Sénégal lii ñuy def nii yëpp cosmétique la ak bugg a taal ay contre-feu pour réeral leen xam ngeen lan laa bëgg ngeen def focus li ma bëgg ngeen jàpp ko moo tax man débat troisième mandat duma ci dugg xam ngeen lu ma bëgg ngeen jàpp ko Macky Sall 2024 février 2024 il sera plus président du Sénégal na fi jóge abal ñu réew mi na am ngor gu doy nag ndax askan wi def desew ko dara nu nous sommes 17 millions de Sénégalais ñaata ñoo ci mës a nekk président ñu xëy jox ko président defu ci dara lu nit mun a wax mu dellu si ne joxaat leen ma ñu jox ko constitution bi ne kenn mënul tegle ñaari mandat nul ne peut faire deux mandats constitutifs bu gorewul nag na ko askan wi woon naka la ñuy def ak ku gore di mooy ci nii wala ci nële Macky Sall mille vingt 2024 dina jóge ci réew mun na am na ñu koy xalamal nekk ci plateau yi di ko waxal lu ko neex ñu nag ñoom xamante nañu te su dul woon alkaati gu dox suñu diggante ba ci keroog assemblée nationale bu dul woon alkaati gu dox suñu diggante ñoom xam nañ du demee nii noonu la demee nag ci lépp lu ñuy def xam nañ ni ñoo leen ëpp ci réew mi ñoo leen ëpp ndaw yu ànd ak ñun ñoo leen ëpp jëpp ci ñu ànd ak ñun ci diaspora bi amul fenn fooy natt foo xam ne tey Macky Sall ëppale nañ ci réew mi lu dul nag yaakaar ci Moussa faal yàgg ak justice loolu nag dina jeex ci réew mi ñu ngi leen gërëm di leen sant